xëy dañuy dem seeti ki nga xam ne Aliou Sow nekk ca Ranérou moom def na benn sorti bu am solo nee na bés bu wuy bi gañee le lendemain dimanche bu gañee lundi le 21 képp ku ñëw Ranérou képp ku taxaw Ranérou di jënd nag bu nag doon jaar ñaar fukki junni keroot di nga gis nagu juróomi junni ku doon jënd nag bu doon jar téeméeri junni bu keroogee dañ la ko wàññil ba ñeent fukki junni ku doon jënd xar buy jar ñaar fukki junni danañ la ko wàññil ba ñetti junni moom mii nag ma nga bokk ca APR Ranérou ma nga foofu ca département Matam nañu ko seet pël la Haalpulaar la mooy président euh, éleveurs yi nga xam ne ñoo nekk ci convergence patron bu Macky Sall moom Aliou Sow di pël Haalpulaar kàddoom googu nag ndax waa Seras dañu ko dégg jaaykatu yàpp yi dibiteri yeeg shawarma yi xam naa ne nag loolu bu ñu ko déggee runner bi ci boppam dana am ay gan ndax jaaykat ya nga xam ne ñu ngi taxaw di xaar wii bi gagné pour ñu wàññi mbir bi mbokk yi dañuy dem ca ambiance ba nga xam ne moo am foofu ca dëkk ba nga xam ne moom mooy runneru ca maatam Aliou Sow xal pulaar pël ma nga ca biir maatam ak ambiance ba. Sow pulaar do Sow pulaar Aliou Sow ari pulaar jërëjëf maa ngi kontaan ci yéen maa ngi bégal ci yéen képp képp xam ne yaa ngi jaay nag reneeru fii ci Matam ñun pol jaay nag yëpp nga xam ne maa jiite ci convergence ñun nee nañu eey eey mooy waaw. président Macky Sall boo nelaw sa ginnaaw mbandang tina mbandang mbandang bari tax mbandang mel na Sonacos bii jaay diw danañu ko niinal ba mu niin bat nga xam ne boo tëddee foo toog mu ri tax mbandang dama ci niin bat ndax li ci niinee bat mooy waabi inshallah mooy eey ñun fol yi dañu d'accord def eey Samba Ba Demba Ba Yoro Ba Cerno Ba Alfa Sow Modou Bi e Jibolle Samba Wuri Alpha Diade Wudi Makakade Salmani Fatoumata Bintu Kadeeru Suwaadu Silley Mamadou Issa Babadu Babam Neenam ñoom ñëpp nee nañu eh. ñun Macky Sall moo tax ñu dugg Assemblée su ma nekkee tey député yàlla Macky Sall moo tax ma nekk député te ñun ñuy jaay nag yi ñun ñoo tax boo leen toggee dooma daa yàpp yàpp fu muy jóge xanaa ci nag war a ci xar boo lekkee sawarma foo ko lekkee xanaa ci yàpp nag boo lekkee li nga xam ne mooy dibiteri xanaa ci yàpp xar la yéen xam nga ne raneeru ci biir Sénégal moo ëpp éleveur ci Sénégal moo tax ñu ngi woo suñu mbokk gàmmu séeréer yi ñu ngi woo suñu mbokk gàmmu joolaa ñu ngi woo suñu mbokk gàmmu njaago yi ak saraxule yi ak olof yi bu soobee yàlla dimanche le 20 altine le 21 bu waaw bi gañee ku am njëg li gën a tuuti ñaari téeméer mun nga am nag bu ndaw dina leen may dina leen jaay nag jaay xar jox bay may leen soow dama ne bu soobee yàlla yëkk bi gën a seer ci yëkk yi jar téeméer junni bu Macky Sall gañee dinañu ko jaayee ñaar fukki junni xar bu ndaw béy bu ndaw ci boppam bu fekkee nag ñun ñoo gañe inshallah béy 2000 francs xar ñaari barigo meew ñaari barigo meew sax boo amee ñaar téeméer ñu jox ko dañu bëgg raneeru yëpp tout le monde raneeru tout raneeru toute la population de Ranérou on voté eey eey mooy oui oui mooy waaw. moo tax ma wax ne. min Aliou Sow. lu ma wax loolu mooy am. nag ñii nga xam ne mooy suñu ay mbokk. nee nañu nedd ko bandum. kon nii mi saw. saa xaalee jaboon kon nii mi